c'est politique dellusiwaat euh, ci seen euh, site euh, d'information di Equivox TV di dalal tey doomu saalum di Momar Soxna ngeen xam ko jiite kuréel bii di mouvement national gm GMDS nekkoon ex coordonnateur bokk gis-gis foofee ca saalum waaye it nekk ab opérateur économique bu mag waaye jamono ji aussi mu ngi yootu conseil départemental bu Kaolack ànd ce coalition Euh, gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany dinañ ñëw ci parti euh, politique bi ak euh, li nga xam te moo jëm ci candidature am ak niñ ko rejeté ci information yu mujjee jote waaye jamono ji ñu gis ko également mu yëngatu bu baax a baax ci secteur bii di ferraille nga xamante ni koppar ak alal ju takku dugal ci réew mi coow li ci am digganteem ak ñenn ci waa Fabri Metal ba ci James ba ci ki nga xamante ne moo yëkkati jamono ji sax ab plainte Euh, fas yéene ko ko euh, jébbal ndax dana fa yegg am déet li ci am yëpp euh, loolu dinañ ci waxtaan moom kilifa gi laataa boobu ñu lay nuyu. asalaamaaleykum maa ngi ne nuyu site bi man la ma Mama Soxna nekk exportateur ferraille yi nga xam ne état Sénégal validé na ko ñu toll ci vingt personnes ñaar fukki nit nekk tamit président coopérative des ferrailleurs de Kaolack. nekk tamit membre fondateur si li nga xam ne mooy regroupement des ferrailleurs du Sénégal nga xam ne tey secteur bi lépp mu ci loxoom. Euh, euh, nekk ci euh, ci Sénégal yëpp partout dans le Sénégal nga xam ne regroupement ba mu ngi fay dox secteur bi yëpp maa leen di nuyu di secteur ferraille bi parce que dafa nekk secteur boo xam ne dafay dugal at mu jot ci gafaga réew mi lu tolloot ci ñu koy xayma ci un milliard cinq cent mbaa ba deux milliards ci gafaga réew mi loolu la nekk nekk secteur boo xam ne ñun duñ ko fayee parce que ci réew mi lañ dëkk te développement réew mi moo ñu tax a ñëw. lu waral Samuel di la porter plainte. waaw dama dégg rek nee na dafa yónnee bataaxal yónnee ay information ci ferrailleurs yi ne leen Serigne Momar Soxna nag euh, euh, fas yéene naa ko porte plainte ndax am na ay kàddu yoo jibal bu yàggu daal. ci waaw am na ay kàddu waa am na kàddu yu ma jibal jëmale ko ci moom jëmale ko ci secteur bi jëmale ko ci Fabri Métal parce que gis naa ne depuis ba ma attaqué Fabri Métal ba léegi moom su ma digganteeg moom ñagas-ñagas am na si kon ma jàpp ne moom c'est un ferrailleur loolu lay mën a jàpp parce que Fabri Métal société privée la ferrailleurs yi dafa yóbbu ferraille fabrique métal nekk tamit ay ferrailleurs di jënd ferraille. Hmm. kon yaakaar naa ne moom su nekkee ki nga xam ne mooy conseil technique du directeur du commerce de l'intérieur ñu yónni ko ci secteur ferraille bi information yi nga xam ne moo am mi réel surtout ñun ferrailleurs yi. ma Serigne Momar Soxna en tant que exportateur parce que bëgguma tamit. Hmm. wax ba pare ma damay waxee fini ci suma tur. ah je suis un exportateur je suis ferrailleur parce que bëgguma wax génn. ñu monte ay nit naan leen ñooñu kooku yabaluñ koo nangam ak nangam mm. loolu lay bañ mm. ba tax na ba ma attaqué Fabry Métal ci doxalin bu ñaaw bu may doxalin ci doxalin boo xam ne jaay doole mm. ak nax sénégalais yi ak euh, ak ak nax ferrailleurs yi te man ma je suis un parce que man euh, luy firndeel yi ngay wax ni waaw lu koy firndeel mooy Fabry Métal daf fi ñëw fekk fi Someta ne ñoom mën nañ jënd li nga xam ne mooy ferraille bi waaye nag ci kaw nan ferraille bi ñoom ginnaaw ñun bu ñu leen ko jaayee ba pare ñoom liñ ciy mën a jël dañ koy togg ñu ko xam ne mënuñ ko togg seen fonde bi mënu ko togg ñun lañ ko war a joxaat xam nga loolu sax dafa métti mu ngi mel ni nga yóbbul nit ba pare matière ba pare mu tànn ci lu mu ciy tànn ba pare ëlbiti ko jaayaat la ko te su la kay jaayaat moom da ciy tegaat vingt vingt mille francs la tonne hmm. loolu rek dafa nekk loo xam ne dafa dañ koy ñaawlu man dama koy ñaawlu en tant que exportateur parce que ñun suñu chargé ferraille bi doo ko mën a partagé hmm. soo demee nag ci moom su ko partagé ba pare ba jël ci lu mu ci soxla la la la sa des nga xam ne moom la ko moom la la war a jox. Hmm. yow tant que exportateur yow loolu ngay dem jaayiwaat te dala kay jaayaat sa la nga ko jaayoo mu tegaat ci vingt mille francs écart xam nga loolu dafa nekk loo xam ne ñu ngi rey eh, Sénégalais yi ñu ngi rey eh, nga xam ne mooy exportateurs yi xam ne ay doomu Sénégalais ñu ngi rey indien yi nga xam ne jógee nañ ci bitim réew ñëw di jàppalanteeg ñi nga xam ne mooy Sénégalais yi fi nekk nga xam ne toll na ci soixante-dix mille ferrailleurs. loolu nga ne àndoo ci. non ni ñu koy doxalee. moo daf ko monopoliser moom li nga xam ne mooy Fabri Meda. parce que ñun vingt personnes lañ ñaar fukki licence moo am ci Sénégal yoo xam ne ministre bi ak directeur du commerce mi Omar Diallo nga xam ne liggéey nañ ci liggéey bu am solo parce que dañ ko cambar mu nekkoon 31 licence ñu liggéey ko liggéey bu am solo loolu toujours fu ma noog toog dama koy wax directeur du commerce de l'intérieur ba mu fi ñëw yàggul waaye liggéey na liggéey bu am solo ci bi ak li nga xam ne Euh, diggante ferrailleurs yére ak li nga xam ne mooy diggante exportateur mais teew yeneen ñaa njort ni ak ni mu fa yéexee ñëw it mm. mën na am xëy na doxalinu ñenn ñi ngeen di ŋàññi nii ah. dañuy dañuy maanaam dañ dañ ko xaw a jege trop mm-hmm. di ko xëy na euh, waaw nu xam nga euh, ba mu fi ñëwee yàggul di bëgg a soppi waaw parce que soo ko seetloo amagul at te dafa ñoo xam ne ginnaaw ñëw na bees bala mooy nànd ba di xam li nga xam ne mooy secteur bi nu muy doxee dafa am ñoo xam ne dañ jog bugg ci profité wu mm. rey ñenn ñi ñoom di dundee loo xam ne seen dundinu bopp loolu lañ gis nag ma gis ko parce que ñun ferrailleurs yëpp yemuñ niveau. Hmm. am na ñoo xam ne jënd dem jaay rek la nga xam waaye ñun dañuy jënd di jaay di di saytu li nga xam ne mooy secteur bi di seet li nga xam ne réew mi lan la ci lan mooy ci njëriñam. parce que lii di Fabien Métal moom ginnaaw bu mu tànnee ferraille ba pare parce que ñun ñëpp daf fee yóbbu ferraille fonte bii des ñun exportateur yëpp ñoo ci am droit. waaye moom dafa seet kenn te loolu yëpp ku ko dof mooy jëm si Abou Risque mi nga xam ne c'est un courtier ci Fabri Metal nga xam ne justement sa diggante ak moom aussi waaw la woon waaye man du ma àndat koo xam ne ku dëng la du ma àndat koo xam ne day jaxasee secteur bi parce que soo ko seetloo moom moo recruter ci vingt personnes yi vingt exportateurs yi nga xam ne am nañ licence fay nañ seen taxe def nañ li war a def yëpp ba ministre bi jox leen ay ay ay licence ñu ànd ak ay sénégalais créer ay société nga xam ne ñaari industrie mi Someta ak Fabri fa la ñu war a jëlee fonte bi Sométa moom mu ngi doxal comme nu mu ko war a doxalee parce que ku dem dana la jaay mbaa léeg-léeg sax daf naan la soo ma indilee ferraille ginnaaw yow yaa may indil ferraille yow laay gën a fabriqué loolu sax yoon xel mën na ko nangu waaye Fabri Métal hmm. moom rek lay jox fonte bi te Aspen la ba fay dugg man dama fay dugal suma wàll keneen dafa dugal wàllam keneen dafa dugal wàllam kon si ñee jaay ñun ñëpp lañ war a jaay parce que prix bu mu parce que ñu dañ jàpp ne usine bi ci boppam. Hmm. ginnaaw usine euh, ASPEN lu may jëndee ñun mën nañ ko jëndee. comme dañuy jàpp ne courtier boobu nga xam ne mooy dox ci diggante ASPEN mi jëm jëm ci Aboris. Hmm. dafa am leneen loo xam ne mu ngi ci biir parce que loolu la xel mën a nangu. ñaari lu may waaw loolu. Hmm. loolu laa mën a gis parce que moom euh, depuis mois d' ba euh, licence yi génne ba léegi le 5 août ba léegi moom kese la favoriser di ko jox fonte bi. parce que man dem naa bu mu jege ne ko man fi ne lu may indi foofu ci ferraille du fekkee indi la sa des man su ma la sa des nga xam ne man su ma man maa ko fi indi man jox ma ko font lettre baa ngi nii lettre baa ngi nii si suuf mun naa la ko justifier oui oui après bind naa ko lettre en tant que directeur Fabri Métal mi euh, euh, mi Mounir Kébër ma ne ko man lépp lu may dugal ci feeraay foofu ginnaaw boo tànnee ba pare quota bii des nga xam ne man maa ko fa indi ma dama bëgg ngeen nga koy remettre ëllëg ngeen koy jaay keneen ngeen jaay ma ko loolu tam mu gi dem na ba jam si abourisque moom nekkoon Serigne Momar Sow ne kon loolu suñ ko defee exportateurs yi nga xam ne indiwuñ fa feeraay kon duñu am feeraay kon kon ginnaaw gisee na ko noonu kon mu ngi wax ne kon su ñu defee noonu dana am ñoo xam ne duñu am feeraay exportateurs yoo xam ne am feeraay ginnaaw waxoon na ne noonu nag warut a demee noonu kon exportateurs yi ci boppam képp koo xam ne am nga licence am kayit am xaalis hmm. soo ñëwee fabriquer métal dañ war a jël sa xaalis di jaay ñu tëddee njaaxaay nag ñëpp dem si loolu nag ba mu ko déclaré attaqué li nga xam ne mooy fabriquer métal Samuel John mi daf ci la jëm plainte daf ci mel ni daf ci gis boppam ba ci ah. gisee hmm. xaw ma si mere man parce que avant may def attaque bi woo naa ko ñaari yoon ba ñetti yoon ba ñeenti yoon. Hmm. parce que moom mooy conseil technique bi nga xam ne moom la ñuy yebal ci base bi muy am ay information réelle war a tëddee njaaxaanaay waaye tëddeewul njaaxaanaay parce que. bi nga ko wooyee lu ngeen waxtaan. ba ñu wooyee ba ma ko waxtaanee dama ne ko lenn rek am na Fabri Metal nu may liggéey c'est pas normal te loolu ferrailleurs yëpp ñoo ko ñaawlu moom Fabri Metal dafa jël kenn rek di ko jox fonte bi. ñun bàyyi ñun vingt personnes yi nga xam ne yow licence bi ñu koy déposé si yow lañ jaar ñu validé ñu ko hmm. dañu war a tëddee njaaxaanaay ne ma hmm. loolu moom du dëgg du yoon loolu teguñ ko fenn waaye na bam na ko waxee ak si téléphone na ma ko waxee ak na may jëfee ak na may doxalee dama gis ne si jamono yooyu noonu yónnee naa ko ay message ay yooni yooni yoon mun naa ko capturer sax envoyé ko nangootul ma tontu commencé di indi ay problème mujj gi si laa bind bi nga xam ne adresse ko directeur du commerce yaakaar naa ne maa ngi ko daté kañ lañ ko daté maa ngi ko daté Euh, yaakaar naa avant euh, tout juste après Magal. ma envoyé ki nga xam ne mooy directeur du commerce yëgal ko li nga xam ne moo xew ba ma ko yëgalee li nga xew ma dem ci directeur du commerce mu recevoir ma ma ànd ak ki nga xam ne mooy euh, Mbaat Ngom ak ku ñuy wax ass Guèye ak ki nga xam ne mooy Modou Guèye Thiès nga xam ne ay médiateur lañ ci regroupement des ferrailles du Sénégal parce que la ma doon dem di wax. dafa intéresser tous les ferrailleurs du Sénégal parce que exportation bi dafay dugal alal yu bëri ci réew mi exportation bi dafay créer ay emploi yu bëree bëri di nga ko jël rek di ko jox benn bañ demee ci directeur directeur tout juste daf ko woo ne ko Serigne Momar Sokhna daf fi ñëw waaye dafa am lu may dénoncé mooy lan Fabri Métal warut a jël benn dit rek di ko jaay fonte bi bàyyi ñeneen ñi hmm. moom lu mu ñëkk def rek mooy Serigne Momar Sokhna dafa yoral jibi xaalis directeur ne ko hey man loolu intéressé wul ma ñoom ñaar su ko yoralee xaalis loolu ñoom ñaar la concerné dama bëgg dama ne xam nga loolu rek Hmm. daf kon moo lay wan dafa wane dafa jeng dafa jeng jeng bi mooy lan te man ji bi abu risque hmm. yoralu ma ko xaalis le 29 juin hmm. juillet lañ def maak moom calcul ñu delloo ma 300000 si ñoom ñoo ma yoreloon ñoo ma yoreloon xaalis ngi nii le ma delloo ci xaalis kon yoralu ma leen xaalis te mu ngi doon wax loo xam ne amul lenn lu ko ci leer te le juillet yaakaar naa ak jour bu ma dem ci euh, kii bi mu ngi ci mois de septembre laa dem octobre laa dem ci euh, directeur toog ak moom jour boobu mu wax directeur ne ko Serigne Momar Soxna dafa yore jëm si abu risque euh, xaalis moo tax Fabri Metal jaay ko xaalis directeur doxalee kilifa gu mat sëkk ne ko man loolu su ma yoon néew ci ñoom hmm. ñaar ay fekkee dañ yorante xaalis su ma yoon néew ci waaye Fabri Metal laa wax ba depuis booba léegi nag moom dafa merci ci loolu parce que loolu waru ko dama yoreel nit xaalis te loolu amul moom su ma doon yóbbu yoon sax moom laay yóbbu si yoon hmm. parce que lu wax na loo xam ne amul ñaare bi mooy ci problème mu euh, Someta ci boppam Someta moom soo demee verser sa xaalis exportateur yëpp képp ku dugal sa xaalis nag mu ngi lay jaay waaye ñetteel bi mooy Fabri Metal dafa nekk loo xam ne dafa dañuy sonal ci jamono ji te ñun directeur du commerce euh, directeur bi nga xam ne mooy Mounir Cover hmm. dafa war a jël Fabri Metal jël ko en main lu ko mooy Fabri Metal danañ ko tëj parce que ñun ay sénégalais ah oui danañ ko tëj naka parce que ñun ay sénégalais lañ parce que hmm. ñun ñoo nekkoon ci secteur bi démb ak barki démb da ci liggéey ñun ñor a ñëw ñoom defuñ nu someta def nga xam ne mënu fi jiitu nar a ñëw jël secteur bi te loolu ñu duñ ko nangu parce que ñoom ay naar lañ ñun ñu nekk ay sénégalais te maa ngi interpellé ki nga xam ne mooy président de la république muy président Macky Sall ay ndoom di liggéey ci réew mi war ci am dara ñaareel bi tamit exportation bi di dugal minimum chaque jour cinq millions ci gafaka réew mi prix plus de 2 milliards ñun dañ bëgg ci réew duñ nangu ci réew ñu ñi ay nit ñëw nara jël lépp ñu toog parce que Fabri Métal ci boppam. Hmm. fi ne yematu ci usine am. jëm si bi région bu nekk mu ngi fay dem fa ferrailleur yi doon dajale ñaari kilo ñetti kilo du ko indil sa usine ba. Hmm. fi ne defatu ko dafa dem ŋàppaaral dem ci. soo demee Saint-Louis tey ki nga xam ne mooy président euh, regroupement bi mi Pape Seck ak ñoom Matar Tall ak ñoom Adama ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne ñoo nekkee Saint-Louis nga xam ne canne à sucre bi nga xam ne foofu di muy euh, euh, CSS nga xam ne dafa loon génnee fer bu bëree bëri mm. ferrailleurs yi nga xam ne ñoo nekkoon Saint-Louis nga xam ne ñoo ko loon génnee di ko am di ko gagné marché fi ne moom dem na sax ba nangu ko ci ñoom muñu mënutul muñ ñooñu jënd ko ñëw jaay ko ko parce que dafay ut profit bu bëri soo demee Ziguinchor la même chose soo demee Touba la même chose soo demee feneen feneen feneen la mooy ne yéen ñi ci yëngatu di ay doomu réew mi gisu leen seen bopp dëggantaan ci secteur bi dafa am benn monopole bi ci am te mhm. dafa amit benn euh, tëddee njaaxaanaay bi ci waroon am amu ci mhm. ngeen di interpeller njiit li ngir mu taxaw xool bi nag euh, mbir mi bañ interpeller dama gis ne Samuel Dione ci boppam mm. information yooyu nga xam ne daf ko gis teg ci bëtam man leer na ba ne teg na ci bëtam daf ko war a rendre ki nga xam ne mooy directeur du commerce de l'intérieur mm. loolu nag laa alerte moom mu gis ni man dama bugg a jóg yàq liggéeyam te waxtaan ak naa moom ci suuf depuis deux mois maa ngi Dakar quitté euh, Saloum ñëw fii Dakar di waxtaan ak moom guddi ak bëccëg dem na ba nga xam ne sax fi ne su ma ko woyee du jël su ma ko message yi du jël ngir lan Fabri Métal mi ma attaqué ngir Aspen mi nga xam ne tamit dafa lëngoog Fabri Métal ànd ak ñoom ci ñenn ñi nga xam ne parce que Aspen c'est un exportateur ñu lëkkaloo Fabri Métal di exporter ferraille bàyyi yeneen euh, Sénégal yi ak yeneen euh, ñee yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci biir secteur bi loolu lépp dama ci alerte li nga xam ne mooy état alerte ci li nga xam ne mooy directeur du nan nga bëgg état taxawee ci rawatina directeur du commerce intérieur ci coow li ngir ngeen yëg ni ah euh, secteur bi euh, état mu ngi ci bàyyi gët naka la ci war a mën a bàyyi gët. nu mu ci mën a mën a bàyyi gët mooy <coughs> parce que ñun ferrailleurs yi dañuy war a déglu. Hmm. parce que directeur di commerce de l'intérieur keroog bañ demee dem ci moom. ba ma ne ko le regroupement des ferrailles du Sénégal toll na ci nangam def nañ ay jéego te tey secteur bi fu mu yegg tey ñoo fa yegg daf na moom loolu xamutoon ko parce que heure bu nekk rek am na ñuy ñëw naan secteur bi ñoo ko yore ñi la ñoo ko yore ñi la ñoo ko yore ma ne ko le regroupement des ferrailles du Sénégal ñoom rek ñoo fi regroupé bi toll plus de 500 personnes yoo xam ne ay membres lañ am ñoo xam ne ñeneen ñu ci bootu def fi siège boo xam ne te fi ne instant yi seen toll na ci 20 millions ba 25 millions yoo xam ne matagul an te loolu yëpp dañ ciy def social da jàppalante nit ñi ñaare bi mooy exportation bi mii man mii keneen vingt personnes ñooy exporté fii ci Sénégal. Hmm. ay Indien ñu ngi ci biir ñëw fii dugal alal yu bëree bëri nag da ci jàppalante ak ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi da ci liggéey ñaareel bi tamit exportation bi di dugal alal yu baree bari ci réew mi. Hmm. loolu dafa nekk loo xam ne état daf ci war a jàppalante parce que xëy yomb ci réew mi. naka la ko war a def ni mu ko war a defee mooy. Hmm. dafa war a xoolaat li nga xam ne mooy direction du commerce de l'intérieur recruter ñoo xam ne. danañ ko mën a jox ay information yoo xam ne yu clair la ci biir secteur bi parce que ñaare bi mooy ba ma defee programme bii nii hmm. bërki démb dañ toog rek euh, li nga xam ne mooy euh, Fabri Métal dafa jël ferraille bi yokk ko ne ferraille bi may jaay exportateur yi koy yokk kon ñi koy jaay ñu koy moom kon loolu daf leen war a yokkal prix hmm. ginnaaw ferraille bi mu ngi jar cent soixante mu ne exportateur bi maa ko doon jaayee cent quatre vingt dix ba ma defee sortie bi mu yokk moom exportateur bi ne la koy jaayee kon dafa waroon a yokkal ferrailleur bi à cent quatre nit ki soo yokkee li ngay jaayee danga war a yokk li ngay jëndee dafay fekk li ngay jëndee mu mu yokk hmm. waaye ñun ferrailleurs yi si Fabri Metal si job si si boppam ñoom ñun suñu leen di jaay ñoo ñuy wax prix bu ñuy jëndee ñoom tamit su ñuy jaay ñoo ñuy fixer prix te loolu maa ngi wax absence su état ci réguler ko waaw loolu dama bëgg directeur di commerce de l'intérieur ministre bi nga xam ne mooy am Amsom jaata ñu jël ci ay matuwaay parce que ñun ay sénégalais lañ normalement si ñuy jaay ñun ñoo war a proposer prix waaye fi ne nag Fabry Métal ci boppam mooy wax prix bu ko neex lay jëndee su ñuy jaay ñun tamit en même temps mooy wax pri bu ko neex lay lay lay jaay loolu amul fenn ci Sénégal mooy monopole bi ngeen di dénoncer monopole bi loolu monopole boobu parce que loolu monopole la ñaare bi mooy ci problème mu fond d'appui bii nii waay dama bëgg ñu dugg ci tuuti ñu leeral ci te maa ngi interpe maa ngi lancé appel bépp ferrailleur bu nekk Sénégal hmm. fond d'appui bi Samuel tamit nee na dama ci ko ci tuumaal loo xam ne hmm. moo tax muy jël ne tax may yóbbu ci yoon man maa ngi koy xaar pour ñu dem ci yoon parce que lépp lu mu xam rek ci secteur bi man xam naa lu ko ëpp. te xam naa lu ko ëpp maa ko téye. Hmm. te loolu su heure bu bés jotee rek man danaa ko génnee. ñaareel loo njort ci fond d'appui bi fond d'appui bi. fond d'appui bi exportateur yi ñoo koy dajale di ko jox ferrailleurs yi. Hmm. ba fond d'appui bi waree départ dama ne da ngeen di xaar ba export bañ xam ñan ñooy exportateurs parce que boobu dossiers yi ñu ngi ñu ngi ko dugal pour ñu valider ñan ñooy nekk ñuy tànn ñan ñooy nekk exportateurs yi kon loolu te exportateurs yi ñoo ko war a joxe. kon est-ce que nañ nañu mën a taxawal fond d'appui si jamono yooyu noonu. Hmm. mënu nekk xam nga li tax parce que mënoo xam ñan ñooy exportateurs yi pour yi nga xam ne nga mën a waxtaan ak ñoom ñu seet kenn ku nekk ñaata la mën a dugal ci fond d'appui bi. boobu ñu ngi dugal dossier yi pour ñu seet kan mooy am licence ak kan moo lu am licence. Hmm. ba mu démarré loolu dama ne ko Samir da ngay bàyyi ba licence yi génn su licence yi génnee ñu xam ñan ñooy partant parce que ginnaaw di ñu am licence ñooy versé ci fond d'appui bi il faut nga xam ñan la. soo xamee ñan la ba pare nga dajale leen nag ñu toog waxtaan nga encadré leen ñu toog waxtaan ba déggoo ci loolu waaye xam nga lan mooy problème bi ki nga xam ne mooy ASFEN mii. Hmm. moo xalaat fond d'appui bi ba mu ko xalaatee tamit même ci dossier nga xam ne. Hmm. Euh, si lañ tëgg fond d'appui hmm. euh, dañ ci def turu ASFEN ne ASFEN moo créé fond d'appui bi. ne moo créé fond d'appui bi. xam nga euh, kii xalaat xalaat mbir si réew. mbaa xalaat loo xam ne day jëmale dara ci réew jarut. dossier bi soo ko defee ba pare nga def si aspen moo xalaat lii moo xalaat lii moo xalaat lii moo xalaat lii moo xalaat lii soo ko delloo mu ngi noonu après ferrailleurs yi si boppam day ñaawlu loon ñu ne lii nañ ko dindi turu aspen bi na ci rëj loolu rek moo lay ñekkee xam ne am na préparation bu ñu préparé woon pour hmm. may doole aspen ñun yaa seen kaw si ñun si seen kaw ñun exportateurs yi ngir lan li nga xam ne mooy Fabri Métal aspen ba mu xalaatee lii nii moom mooy mooy fond d'appui bi moom ba mu ko xalaatee naam rafet na waaye dañ waroon woo exportateurs yëpp ñu toog waaye ASPER ak ñetti ñetti indien kese ñoo toog tënk lu ñuy tënk proposé ne conteneur mu nekk danañ ci génne temps du ko dimbalee ferrailleurs yi ci boppam te loolu jaaduwul. Hmm. ba loolu amee dama woo Samuel ne ko yow ginnaaw yoo la fi ministre directeur du commerce teg te fonds d'appui bi da nga ne yaa ko bëgg a yaa ko bëgg a Samuel ba mu xalaatee lii ba pare danga waroon a woo ñun neuf exportateurs yi ñu toog suñ toogee waxtaan ñu seet naka lañ koy tëralee. Hmm. ak naka lañ koy doxalee ak kenn ku nekk bañ déggoo ci kàddu ne lii la ñuy waaye loolu yëpp amul ma interpellé ko ci ñaari yoon ba ñetti yoon ba ñeenti yoon ba loolu fond d'appui bi taxawee ba pare ñu forcé taxawal fond d'appui bi bañ taxawalee fond d'appui bi. fi na hmm. léegi pour nga charger ferraille. Hmm. il faut ginnaaw loo am këyit këyit bu légal ci état. Hmm. da nga versé ci cinquante mille conteneur bu ne te dañ la koy imposé. cinquante mille francs ci conteneur bu soo chargé conteneur bala ngay chargé conteneur dangay dem fay cinquante mille francs dangay ngay fay cinquante mille francs du fekkee euh, kii la euh, euh, ferraille la. du fekkee aluminium la da ngay joxe trois cent mille francs chaque conteneur. koppar yooyu fu mu jëm. koppar yooyu dañ ne ci ferrailleur yi la jëm. Hmm. man d' accord naa. ferrailleur yi naka comme sous forme de mutuelle taxawal ay xam ne. waaw lu ñu soxlaa bu ñu feebaree bu ñu nangamee ñu jàppale bu ñuy xew wala waaw waaw ba commencé na ñu ngi ciy versé ñun ñëpp ñu ngi ciy versé. ñaareel bi mooy waaye nag bala ngay mën a am bala ngay mën a am conteneur il faut nga fay te loolu bokk ci état loolu du forcé hmm. état jox na la licence ne la yow am nga droit exporté yaa ngi fay say droit yëpp lii li ñu waxtaan waroon waxtaanee la ba tënk ba d'accord si ñu soog si nangu waaye nag du fekkee sax man fekk si naa leen si dama ne fond d'appui bi nañ ko jox ferrailleurs yi ñu téel ko seen bopp loolu mooy yoon. Hmm. nañ ko jox ferrailleurs yi ñu téel ko seen bopp maanaam ci loxo yu mu nekk ngeen wóoluwul. loxo yu mu nekk am na loo xam ne man wóoluwuma ko tey wóoluwuma ko suba parce que li tax keroog jour bu may génn boobu kees gi am na un euh, euh, kii compte bi am na weer weer boo xam ne kenn mënu a xam lu ne ci compte bi. Hmm. te ferrailleurs yi lañ ko ubbiloo ñetti ferrailleurs ñoo dem ubbi ko Samuel kese mooy xam lu font lu compte bi di am moom mooy informé ne compte bi lii la am si jamono yooyu si semaine boobu noonu avant may dugg ci émission boobu Samuel joxe na benn lien boo xam ne ne képp ku bugg a xam fond bi lu fa nekk kees gi lu fa nekk lii ngay cliquer semaine boobu noonu xam nga 10 jours yoo toog nañ 10 jours yoo xam ne soo cliquer du jàll ji nga jour ba ma defee émission bi teguñ si juróomi fan. Hmm. ñu soog a xam li nga xam ne lañ doon kaas chaque jour ñu mën a xam ñaata moo fa nekk. teguñ fi juróomi fan xama juróom benn fan ci lañ soog a commencé génnee ne kees gi fi ne léegi li or boo cliqué mën a xam lan moo fa nekk kon hmm. man génn ba ma génn tuumaalu ma nit waaye dama wax li nga xam ne ñun moo ñu moo ñu lënt hmm. te dañ bëgg mu leer ñaareel bi mooy cinquante mille mbaa trois cent mille yi nga xam ne da ko war a fay hmm. pour nga mën a charger conteneur xam nga loolu état waxul ko ginnaaw état waxul ko te Samuel nekk administration bokk du affaire état yéen ferrailleurs yéen a ko moom waaye daf ci génnewu loxoom ba léegi li tax fi ne nag ñun kan moo ñu xamal ne kii mooy fay ak kan moo lu fay. Hmm. xamu leen ko amu leen ci dara. non amul benn list bu ñuy fësal amul tamit ay réunion yi ngeen def pour xam ne kat fond bi. nii lañ koy jaarale fii leen léegi ci dugub conteneur bu njëkk hmm. loolu amul soo soxlaa conteneur ngay dem Mangeland jël conteneur dem hmm. charge. waaye bala ngay charger conteneur da ngay dem ci Samuel verse da ngay dem fay verse ba pare Samuel jox la autorisation. verse cinquante mille verse cinquante mille bu fekkee discompté na cinq cent mille nga verse ko banque ba pare ñoo won Samuel cinq cent mu soog la dagal li nga xam ne mooy autorisation pour nga mën a dem yóbbu ko Mangeline pour ñu mën la jox conteneur waaye ñu lan moo ñu leer ne am na ñoo am na ñëpp a ngi fay na ñu fay amul lu ñu si leer parce que lii fay lii tax ngay fay ak autorisation bi Samuel moo ko yor kon kees gi moom moo ko yor. Hmm. kon mooy encaissé man lu ma jàpp mooy encaissé parce que. lii tax ngay fay ak lii tax nga mën a am conteneur te bala ngay am conteneur da ngay fay Samuel moo lay jox autorisation. est-ce que li waral kees gi yéen a ngi ciy jëriñoo. kees gi mois. Hmm. kenn jëriñoo gu ci yéen ñii. ci non non kenn ci yéen la war a jël jëriñoo ci te ñaareel bi mooy man dama ne ko en tant que exportateur. Hmm. ñun dañ waroon a toog waxtaan ba pare man kenn gënuma fi bëgg ferrailleurs yi kenn gënul ma bañ bëgg li nga xam ne mooy fond d'appui bi waaye nañ ko jox ferrailleurs yi ñu yoreel ko seen bopp. Hmm. keesu ya loo xam ne secteur informel état waru ci dugg ferrailleurs yi ñoo ko war a yore seen bopp soo demee marché euh, marchand ambulant yi ñoo ko yore seen bopp soo demee ci mécanicien yi ñoo ko yore seen bopp soo demee ci artisan yi ñoo ko yore seen bopp man lu ma d'accord mooy conteneur yi nga xam ne ñooy génn nga xam ne conteneur bala ngay conteneur bala ngay charge conteneur da ngay fay cinquante mille mbaa trois cent mille francs te loolu bokk ci état hmm. autorisation boobu bii firndeel ne da nga war a fay mbaa da ngay fay ba pare euh, da ngay fay ba pare ñu soog la hmm. dama ne loolu Samuel moo ko yore Samuel mooy yor autorisation pour rien que autorisation lu ko a jox nga mën a fay cinquante mille mbaa trois cent mille francs. d' accord te da ngeen bëgg na mbir moom mu leer. loolu mbir moom laa bëgg mu leer bëgg mu leer. Uh-huh. d' accord leneen loo bëgg ñu leeral laataa maa dugg ci politique bi. Uh-huh. Uh, ci mbirum ferraille loo jàpp xëy na am na solo it ñu ñu indi ci ay leeral. ginnaaw poñ poñ yi nga xam te ne wax nañ ko mu jëm ci monopole bi. Uh-huh. wax plainte bi nga xam te ne jibal nañ ko uh, fond d' appui bi wax nga ci uh, ak tamit sortie bi nga xam te ne def nga ko ci Samuel ak ci aju. dafa am leneen loo bëgg a leeral. laataa ñu jàll man ba ma defee lettre bi dénoncé ko yóbbu ko ci directeur mm. dama toog ay semaine Samuel woo ma téléphone ne ma mm. dañuy def enquête parce que y a ma ne ko man lettre laa def jëbal ko ki nga xam ne mooy directeur du commerce de l'intérieur mm. mu ne ma li ma def noonu plainte la waaye da ngay ñëw dañ la war a auditer yaa ngi may dégg bu baax nit ki kay soo plainte yaakaar naa ne bañ la balañ lay déglu yow mi plainte ka nga plainte moo war a dem uyu ba pare nekkat Serigne Momar Soxna plainte na la ci nangam ak nangam ak nangam su boobaa Fabry Metta ñoo waroon a jiitu ci enquête bi ginnaaw ñu ne man loolu plainte la su boobaa nag man tamit su Fabry Metta si nañ dégloo ba pare man ñu soog ma ñu waaye nag man lañ ñëkk woo waaye man amuma problème bañ ma woowee rek dama dem parce que affaire dama ñor ba ma demee ñu enquête ma ba pare defar lépp ma ne leen jox leen ma ma signé. Hmm. parce que PV dama ko war a signé ñu ne ma noonu ngay dem. soo demee ba toog in euh, fii ak ñaari fan ñetti fan ñu def jël ko dugal ko ci mail envoyé la ko nga signé ko yónnee waat ñu ko ba ma toogee ma 10 jours quinze jours yaa ma yebaloon ci bërëb sàngam pour ñu def audition ba ma defee audition ba léegi nag PV bi jotuma ko pour mën a signer pour seet la ma waxoon la ma wax na moom lañ defam déet Samuel ba ma ko yónnee message message baa ngi nii ba léegi tontuwul ma mën na 15 jours ma yónnee ko vocal ci loolu tontuwul ma man na 15 jours léegi mu man un mois ma yónnee ko téléphone message woo ko téléphone tontuwul ci loolu te loolu dafa nekk loo xam ne lu ma jaaxal la. nit ki ah, nit ki hmm. Hmm. soo ko enquête mu def enquête ba pare. normalement war nga ko jox PV bi mu signé ko mbaa su ko signé wut ba pare nga wax ko ne ko demal sa kër danañ la woo nga ñëw signé ko waaye ba léegi nii warut a passé lu mat 15 jours te woowuñu ma ne ma Serigne PV mu nga defoon fii PV baa yoo xam ne moom nag nee na mu ngi directeur dana ko la wax ne waaye ba ñu ñëwee comité Serigne Momar Soxna la def. Euh, Serigne Momar Soxna dégg nañ leeral yi nga indi ci eh, li la met ci secteur bi yëpp ak jafe-jafe yi nga xam yeneen ko ci jànkonteel euh, surtout li dox seen diggante ak Fabri Métal ak kilifa yi ko euh, jiite ñu dugg tuuti ci politique conseil départemental bi sa liste bi dañ ko rejeté. mu mel ni bëri na ci waaw conseil départemental man maa nekkoon dama àndoon ak Bougane Gueye Dany. Hmm. ci listam nekk tête de liste département. si xibaar yu ma jot ci sama mandataire daf ne liste bi dañ ko rejeté parce que démb ci démb ci suba la ma woo ne ma euh, préfet moo leen woo pour ñu am ay ñaari nit mbaa ba ñetti nit yoo xam ne dañ ko war a ratifié si 72 heures parce la leen jox. Hmm. ma yónnee leen ñaari yoo xam ne gànjaay lañ war a jógee ñetti nit pour ñu changé ko ñu ne leen tey ci 8 heures na ngeen ñëw dugal ko xam nga démb ak tey 72 heures matu fi. Hmm. bañ demee tey ci 8 pour dugal ko préfet ne moom du ko jël rejeté ko. si lañ ma woow yégal ma yëgal ma information bi ne ma euh, euh, préfet nee na euh, du fekkee mën nga ko woo téléphone pour jokkoo ak moom nee na liste bi dootu rejeté na ko dootu ko jël ma ne kon jarutoon muy wax mu ñuy jox liste bi ne dans 72 heures na ngeen dem si remplacer ñaari nit ñetti nit yi nga xam ne war na jógee ci commune de Gandiaye kon jarutoon mu ñu ko jox kon rejeté bi démb la ko war a kon ma la a xam ne kon affaire dooy na waar parce que sa Saalum yaakaar naa ci département Kaolack benn liste mooy am mi eh, liste APR kese mooy dem ci département bi te xam naa ne. Hmm. te loolu wax dëgg yàlla waroon nañ ko mën a defee eh, fair play ba nga xam ne eh, ba nga xam ne dana am beneen liste boo xam ne mooy jàkkaarloog li nga xam ne mooy APR ci département bi xam nag dañu ragal. Hmm. jàkkaarloog Sonko moom nee nii moom élection du am. waaw non élection moom soo ko seetloo si département yëpp soo ko seetloo benn liste demul parce que ñun ci Kaolack man man gis naa ne maag Pape Demba bi tey. nga xam ne APR moo ko samp ñun ñaar kese ñoo defoon ci déclaration ci département Kaolack kon moo laa wax ne département la benn liste moo fay am mi APR ñooy dem élection loolu laa ci jotagum xel euh, ci ci ay information dama xamul nag fii ak suba hmm. jombati man daal lu may wax rek mooy njiitu réew mi nga xam ne moo njaboote ñëpp lu ma koy wax rek ci si xalaat parce que mooy moo ñu njaboote ñun ñëpp nañ seet mbir yi ni ñu koy doxalee rek ku man euh, ku gagné rek ñu xam ne gagné nga hmm. te vraiment loolu mooy lu lu rafet ci Sénégal loolu mooy Euh, euh, wéy woo xam ne wéy wu rafet la parce que élection locale ñàkk am te am na ñu ko doon wax naan du am président Macky Sall fexe na dana def ay njuumte mbaa dana def ay mbir yi nga xam ne ba élection di am te yooyu yëpp buñ ko ci séentu li ma koy wax rek di ko te euh, ko ñaan mu ñu tëddee njaaxaanaay fexe ba élection yëpp am ku mën a dem gagné nga gagné ñu xam ne gagné nga loolu daal laa am lu may wax ci conseil départemental ci conseil ñu ngi lay gërëm di la sant bu fekkee am na yenn leeral yooyu indi li ñu cëraloon ci waxtu jeex waaw lu may leeralal doo ma nit koo xam ne ku ñuy tiital la mbaa ku ñuy xoqatal parce que man saraxule la euh, dëkk fele si Saalum ba tax na li nga xam ne mooy secteur bii di secteur ferraille lépp loo xam ne gis nañ ko am ci lu ñu naqari danañ ko yëgal autorité yi maa ngi gërëm nag ki nga xam ne mooy euh, euh, directeur du commerce Omar Diallo nga xam ne wax dëgg yàlla depuis ba mu ñëwee ci secteur bi ba léegi exportation bi ñu foogoon ne dana arrêté ak yooyu yëpp tax am na teg na ci tànkam ba nga xam ne wax dëgg yàlla exportateurs yi ñu ngi ci base bi waaye nag i faut ñu leen liggéey bi ci autorisation yeeg ak li nga xam ne parce que dem démb rek am na sama benn jigéen bu ma woo nee na 15 jours a ngi nii te am na licence am am xaalisam chargé ferraayam manta am autorisation mooy fond d'appui boobu autorisation parce que autorisation moom fond d'appui bi rek moo ko tax a jóg du leneen loolu bokkul sax si li nga xam ne mooy exportation moo ko teree mën a chargé te jigéen la nekk nit koo xam ne di employé ay nit loolu nekk na loo xam ne lu métti la ba tax na mbir yi nañ ko seetaat yéen ferrailleurs yi maa ngi leen di ne nañ taxaw xam ne ñun ci Sénégal lañ bokk ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay di wax ne nag Fabrimetal ak ki nga xam ne mooy jëm si abu risque Fabrimetal moom ci nii nu mu nar a continuer nii ñun Sénégal yi danañ ko teg parce que mënut ñëw fekk ñi ci secteur bi fekkoon leen ñoom ñu nekk ci ay fast food ak ci ay Euh, restaurant nga xam ne loolu rek moo nekkoon seen métier te ñun depuis 1960 seen maam yi yëpp nekkoon fi ñu nekk ci secteur bi di ko doxal ba heure bi secteur bi di dugal alal ju bëree bëri ci réew mi te ñun ñu nekk ay sénégalais duñ nangu ku ñëw du ko nangu surtout jëm si abu risque mi nga xam ne dafay wër Sénégal yëpp fi nga xam ne ferrailleurs yu ndaw yi fañ doon amee ndaaj tuut tuut du ko indi ci euh, ci usine di ko ko jaay xeet na loolu fi ne fépp fu Sénégal nekk ferrailleurs nekk fa ñaareel bi tamit li nga xam ne mooy usine batterie bi mi Gravita maa ngi wax directeur du commerce mu am lu mu ci seet parce que Gravita tamit ñu ngi ciy sonn parce que ñoom rek lañ jox licence ñiy jënd batterie fii ci réew mi usine baa ngi fii Sénégal may ma tuuti usine baa ngi fii Sénégal soo jëndee batterie fu nekk ci Sénégal moom nga ko war a indil mu jënd mu jënd ko waaye nag da ngay jënd batterie avant ngay yegg ci usine bi sax ñu nangu ko ci yoon wi confisque ko nga ñàkk sa alal te lool gis naa si suma xarit Ibrahima Mballo ñàkk na ci xaalis bu bëree bëri ak ñeneen ak ci Touba ak ci feneen am na bu dëkk Touba alal bu bëree bëri la ci ñàkk te loolu yëpp wax dëgg yàlla nekkoon nañ ci secteur da ci am dara di ci góorgóorlu asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah ñu koy gërëm di ko sant euh, moom moom euh, Momar soxna lañ doon dalal di opérateur économique gërëm leen sant leen beneen numéro seen émission c'est politique fii ci Equivox TV.